maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu alaaji Maodo sama xarit di nuyu ki mu nekkal oustaz di wax rek ne bon maa ngi déglu bu baax li ngeen di wax mais moi je pense que mu nga xam ne moom laa ci bëgg a wax rek mooy xam nga àdduna aussi ku nekk am na sañ-sañ def li nga xamante ne nii moom nga xalaat ne loolu moo gën ci réew mi beneen bi mooy ñun ñëpp ay kilifa lañ ay républicain lañ nekk ci réew mi mais jàpp naa ne askan wi nga xam ne parce que maa ngi dégg léegi ci sud euh, du Maodo. Euh, ñuy wax ne euh, voilà euh, boo sante ay xale da nga leen war a santaat ci saasa ñu war a dem wuti majorité député yi dañoo war a xam ne askan wi ñoo fal jomaay dëgg la askan wi ñoo fal jomaay cinquante quatre pour cent mais bu leen fàttali aussi askan wi ñoom ñoo fal aussi député yi au suffrage universel direct te ñooñu aussi ci askan wi lañ bokk donc dafa am loo xamante ni ku ci nekk nañ ko bàyyeek ay prérogative am te tey jii li nga xam ne moom moo am aussi mooy am na loo xam ne war nañ ko wax moom mooy nit bu fekkee ne da ngaa gis loo xam ne moo am da ngay def analyse parce que le président de la république mais tey jii ni mu xamante ni noonu la euh, indee proposition de loi bi mais amul benn élégance parce que nag aussi la réalité mooy dialogue des institutions dafa mës a am ci réew mi waxtaan parce que jàpp naa ne président Macky euh, Abdou Diouf muy président Abdoulaye Wade di président Macky Sall dëgg la ku fi ñëw mën nga am programme ne damaa bëgg def nangam mais képp koo xam ne. da ngay dissoudre ay institution waxtaan nga ak ña fa nekk bul fàtte président Macky Sall moo ci moo ci mujj ba muy def conseil régional yi dafa woole les conseils yi nga xam ne ñoo nekkoon PDS ñoom Fabo liggéey ñoom euh, euh, Babacar gay mii waxtaan ak ñoom au palais le président Abdoulaye bi mu ñëwee dafa recevoir président Sénat dindi ko dëgg la def euh, CRAES mais loolu lépp mais dañ ko def ci biir waxtaan ñu xool exactement li nga xamante ne am te booba fekk na ñoom aussi ña nga xam ne ñoom lañ doon waxtaanal te loolu ñu doon dindi mais ànduñu ak moom donc je pense que nit ku nekk da ngay xool la nga xamante ne nii moom mooy dëgg wala moom mooy élégance nga wax ko parce que nag képp koo xamante ne nii ci réew mi nga nekk muy ñun ñii réew mi duñ ko yàq parce que opposition wax naa ko on sait on est dans l'opposition dañuy opposé wu de manière digne républicaine duñu saaga duñu xaste duñu toj duñu yàq parce que réew boo ko defaree doo ko yàq mais nag aussi ak loo xamante ne nii xam nga ne c'est intime conviction li moo am te ñun greffe yi ñuy wax du loo xamante ne nii euh, dañ ko euh, imaginer démb bi ñuy wax wax affaire ONAS la ministre de la justice moo taxaw devant tous les sénégalais ne ibbi nañ enquête boo xam ne ci tous les bords la te juróom weer la mais dañ ne ñun loolu scandale la boo xamante nii teel na ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni c'est des griefs yoo xamante nii dañ koy gis di ko wax fii la ñu toog ñu ibbi assemblée nationale ñoom ñu fal leen le premier ministre li mu njëkk def moom mooy dem grand théâtre wax lu ko neex traité assemblée nationale de tous les noms avant boobu le ministre porte-parole moom moo dem au grand jury daat ne les députés bu ñu defee motion de censure menacé ñu pourtant taxul ñu def ko pour te dire que ñun on a été républicain waxuñu leen defuñu leen dañoo ñëw bàyyi leen ñuy liggéey donc loolu nag jàpp naa ne su amee nit ki nag quand il faut que nga jox ko cëram parce que nag président de la république ni ñu ko falee au suffrage universel direct noonu la ñu falee député yi au suffrage universel direct te wax nañ leen ne leen dissolution assemblée nationale à partir du 13 constitution moo ko may assemblée nationale mais ñun amuñu lu ñu ciy seet nañu ko dissoudre bu ñu ko mënee waaye loolu aussi dafa tax war a tax ñun li nga xamante ni moom la ñu xalaat ne loolu la ñu euh, gis ne moom mooy li ñu yoon may loolu la ñu gis ne moom mooy dëgg loolu moom mooy suñu intime conviction qu'on puisse le faire maintenant nag les faits sont sacrés le commentaire il est libre ku ci nekk am nga droit far fu la neex ku nekk am nga droit wax lu la neex waaye nag jàpp naa ne aussi analyse dafa war a doon des analyses yoo xamante ni ay analyse objective la man noonu rek laa ko gisee du ma xàññi kenn du ma du ma du ma du ma ŋàññi kenn nag ok parce que jàpp naa ne ku nekk rek da wax ak sa intime conviction. ok président euh, Abdou Mbow euh, motion de censure bi euh, yaakaar ngeen mu aboutir. non déggoo li ma la wax ñun lu ñu amul yaakaar duñ ko def. très bien parce que dañuy man lu ma amul yaakaar du ma ci def parce que démb ñu bari ñu ngi doon wax ne amuñu yaakaar ne mbir mi du dina jàll ñun bul fàtte ne ñun 81 député la ñu am démb 83 ñoo ñoo voté motion de censure bu ñu amuloon yaakaar ne dana mais duñu ko déposé. parce que ñun aussi jàpp nañ ne loolu mooy li nga xamante ni moom moo war a am suñu intime conviction la parce que nag aussi ñoom dañu jàpp ne lii nga xamante ni moom la ñu déposé proposition de loi bi projet de loi bi mais c'est pas pour dissoudre les conseils ñoom argument de campagne la ñu bëgg parce que aujourd'hui gis nañ ne tey jii ñoom ñaata réforme la ñu waxoon ne moom la ñu fiy def waxuñu woon dañuy def euh, conseil supérieur de la magistrature le président de la république génn ci le premier ministre tey Ousmane Sonko moom moo taxaw publiquement ne le premier président de la République et le ministre de la justice amuñu dara lu ñuy def ci conseil supérieur de la magistrature est-ce que tey génn nañ ci tey jii ay réformes yoo xamante ni moom la ñu waxoon lan la ñu waxoon ñu ne fonds politique yi dafa xaraam est-ce que tey fonds politique yi ñoom wax nañ ci dara est-ce que tey jii indi nañ une loi de finances rectificative pour que ñu joxe orientation bi li nga xamante ni jot nañ ko ci ay ressources. ñu fan la nekk. le le premier sa déclaration de politique générale bi nga xam ne. Hmm. moom moo waroon a ñëw joxe les orientations institutions yi ak li ñu diggoon est-ce que ñoom def nañ ko. Hmm. mais loolu lépp defuñu ko donc ñun. Hmm. on est dans le droit de faire des analyses parce que nag aussi il faut que nit ñi xam ne Sénégal Ousmane ko génn fi barki Dembo Ndiaye ne opposition bi ay tapet lañ ay kii lañ parce que dafa yaakaar ne ñun dañuy opposé wu ko moom du ñu def ne moom. parce que du ñu moom du ñun. ça aussi il faut que les Sénégalais le sachent. ñun on va s'opposer dignement euh, la la la légalité hmm. respecter les lois et règlements hmm. respecter la république ba pare nag képp koo xam ne yaa ngi def sa waxtaan ak sa commentaire hmm. ñu nangu la très bien merci Abdou